maaleykum waa Thiès tey nag ñu fas yéene def doxantu bu Thiès fas yéene waxtaan ak askan bi ci phénomène bi nga xamante ni moo lëmbe réew mi muy phénomène lesbienne yi ak phénomène góor jigéen yi ay ca tey nag ma ànd seeg sama caméraman aada ñu fas yéene àndandoo rek waxtaan ak sëñ bi sëñ bi baaxee ñu tur bi ak sant bi ñu ngi lay nuyu bu baax a baax. maa ngi tudd Alioune Ndiaye Alioune ci marché bi. waaw. ati te ñu ñëw seet si la fa yéene waxtaan ak yow euh, phénomène bi nga xamante ni moo lëmbe réew mi muy góor jigéen ñi sonal askan bi Sénégal yow lan moo ciy sa xalaat. ah waaw sama xalaat mooy fii góor jigéen waru fa nekk fii c'est un pays musulman à 95 pour cent musulman góor jigéen waru fa mën a waru fa nekk parce que góor jigéen ñun euh, suñu société euh, dafa àndul ak góor jigéen góor jigéen xëy na dëkk tubaab yi ñoom ñoo ñoo ko yaayoo mais par nous fii warul am góor jigéen. waaw dañu war a éradiquer affaire boobu quoi. phénomène bi phénomène bu doy waar la dafa mel ne ñun suñu autorité yi ñoom dañuy seetaan loolu waaye fi mu jëm ëllëg war nañ ko xoolaat ndax suñuy xale suñu xale e, tey mooy suñu mal suñu magu ëllëg ba nga xam ni dañ see war a veiller bu baax ndax xale yi ñoo ñu war a jiite. waaye li nga xam ne euh, musiciens yi artistes yi ñu ngi koy def si télé yi am na si yenn xale yoo xam te ni mën nañ koo copier léegi nag copier bi ñu koy bi ñu koy copier day law rek du taxaw si benn place ba nga xam ni maanaam ñun war nañoo booloo ñun ñi nga xam ne dañoo bañ loolu war nañoo booloo taxaw nekk benn xeex loolu mu jóge fi. doon waar moom dama dikkee kaw quoi ndax man jàpp naa ne Sénégal moom surtout maag réew réew buñ buñ buñ tuddee Sénégal. am na fii mag ñu baax ñu fi tëdd defe naa bu nee ba fi dawal affaire yi borom ñaari tur yi xamal ne affaire bu ñaa loolu lu doy waar la te loolu moo wax dëgg yàlla buñ buñ ci buñ li raam ci ñag bi la jëm xam naa buñ bis buñ ci buñ ci taxawul xam naa moom euh, moom dana piloo mbiru góor jigéen yi daal mu toll ni ñu euh, gouvernement bi ñoo si war a wax ndax euh, nekk góor war a def jëfu góor nga bàyyi jëf góor dugg si yëfu jigéen kooku warul kon dafa am loo xamante ni gouvernement bi ñoo war ñoo si war a wax ndax loolu am bagaay si réew mi du jeex muy fii du fu mu mën di doon loolu fu mu doon actuellement moom sonal mais da ngay dox si mbedd sax mu leer ni kii kii la romb nii nekkul jigéen mais mais jëfinu jigéen lay def mais loolu warul. mbir moo xam ne la mbir mu doy waar la. parce que wax dëgg yàlla lépp lum nit mën a def xeex ko mu jóge fi jar naa xeex parce que benn euh, du suñu aada du suñu cosaan. góor jigéen moom kenn du ko dagadal fii senegal araam na baaxut lislaam bëggu ko même ñi ne lislaam sax bëgguñu ko kon góor jigéen moom kenn du ko daganal ci Sénégal fii te ku ko fi daganal xam naa des na ko jëflanteeg yow. tey yow en tant que père de famille nan nga gisee jafe-jafe réew mi nga xamante ni jeune yi ñu ngi koy ñu ngi koy dund surtout nag ci wàllum góor jigéen yi. voilà loolu ni ma ko gisee ni maanaam bari na fi mais lu ci yu ci ëpp yi lu ci ëpp yi dañ koy mbubboo rek dañ koy mbubboo ba pour wutum xaalis pour wutum xaalis du lu rafet nag du lu rafet ndax ay kilifa yi fi ne ba xëy na niñ ci war jóge wax ci defee wuñ ko noonu. parce que léegi wutum xaalis bi ba ci nekk na li nga xamante ne man comme ni ma ko gisee yu bon yi rek léegi moo leen di may xaalis voilà di yiñ fi daan aayal comme pecc meeg baar yeeg boîte yi rek léegi presque mooy di may jeunes yi xaalis. ndax it nag da gis ko yor. nga ne su ma ko dénoncé du ma am te xaalis ba mbaam ma ko dénoncé ñu mere mbaale na te xaalis yàlla ko joxe wërsëg yàlla. am na ñoo xam dañuy xëy tëdd duñu liggéey dara te soxla suñu bëgg a faj ñu ngi koy faj man am naa ndijaay joo xam ne baayam da ko ne woon dëkk bii ma la teg bu ko génn sa girig dund Rasulullah laa lay waatal ne teraangaam fa la koy fekk di ko fa fekk di ko fekk ba mu fa juróom-ñett fukki da ko làqu kon loola ci du du woon xaalis waaye dégg ndigal la woon ak la ko bàyyi noonu bul génn dëkk ba kon nit ki bu mu xeeb wërsëgam loo war a am boo xëyee di nga ko am ci kattanu yàlla kenn mënta yor wërsëgu kenn. selon toi lan nga xalaat ne moom mooy andi mbirum góor jigéen fii ci Sénégal. Ah, mais question de wiis la rek wiis la ah, di ñëw ay seeni wiis bopp rek dugg ci parce que xam nga léegi àdduna bi dafa bari perversion xam la waaw dafa bari perversion bon nit ñi tu xam nga day léegi daal lu waay neex def waaw ku nekk lu la neex def moo indi situation yi bon nit ñi jaxasoo nañ xam nga. waaw mais góor jigéen daal moom baaxul moom góor jigéen moom. est-ce yi aussi du ci jouer. Ah, bien sûr ci la bokk parce que parents yi bari dañoo abandonné seen doom yi bàyyi leen ñuy def leen neex et puis ak télé bi tubaab yi di seetaan tubaab yi seen mode de vie yooyu bon mooy indi yooyu yëpp yooyu yëpp loolu nga indi. parents yi ñoo war a jàppale seen doom ndax euh, gisoon nit jamono mett na métti koo xamante nii soo amee ginnaaw da ngay da ngay gëstu ñi nga xamante nii. ñoo nekk sa ginnaaw muy sa njaboot sa njaboot loo si man di def si àdduna loo xamante nii da nga pour ëllëg ñun ñun suñuy maam yi danoo liggéeyee suñuy bàyyi kon boog ñun suñuy bàyyi war noo mën a liggéeyee loo xamante ni pour ëllëg la. kenn ku ne nag di yaay ngaa war a xool sa doom ci lan lay dugg ci bi muy gone ci lan la ne ndax njaboot ju ne sàmm nga te ku ne dangaa war a sàmm sa njaboot. xam ci fu mu yendu xam fu mu fanaan waaye boo xamul fu mu yendu xamoo fu mu fanaan lu mu dugg ba lànd ca dootul neex a jinj kon dana ñaanal yàlla ñi nga xam ne bi ñoo ci duggoon yal yàlla génne leen ci ñi ci duggagul it yàlla buñ ci dugg te jaboot yëpp yàlla nan sàmm seeni doom ndax ay sàmm lañu ah rawatina nag diggante góor ak jigéen bii xew ba fan yëpp gis nga ni mu lëmbee dëkk bi maa ngi koy seetaan démb maire bi wax bay jooy loolu ñaaw na ndax ba mu njëkk tere doomam kii bu mu fi fanaan bu ko toppatoon ba xam ko mbir ma du egsi fii ndax doom kenn du ko ragal kenn du jur di ragal juróom-ñeenti weer dafa métti soo mbeesa doom kon bu ko ragal da ngay defanteeg moom farata wax ak moom fulla su bañee nga jébaane ca kaw ba ñëpp dégg ko waaw kon jaboot gi daal ah yéen ñu yaay gi nanu bàyyi sunu doom yu góor yi sunu doom yu jigéen yi sunu borom kër yi di leen sàmm ca di leen wàññi te nu bañ a nëpp nëppal bañ il faut ñun ñu génn massivement taxaw si loolu ak sëriñ ci ñëpp ñu dox ko loolu jóge fi bu ñu ko deful du fi jóge ndax boo xoolee fii euh, autorités yi bari dafa mel ne dañuy pousser nit ñi ñu ñuy def góor jigéen te fi mu doon nii góor jigéen boo xoolee euh, mën na nekk ñaari anam am na ñoo xam dañ koy si solin lañ koy def maanaam duñ ko jëfe daal waaye am na ñoo xam dañ koy jëfe waaw ba nga xam ni Euh, autorités yi waaw euh, mën nañ mën nañ see veiller si loolu ak ñi nga xam ne daal euh, bañ nañ ko sinon daal ëllëg fi mu jëm fi mu jëm ëllëg mat naa xool lool waaw. mu mel ni su ma la déggee si say wax da mel ni da nga naan autorités yi dañoo dañoo dañoo nekk seen ginnaaw di leen jàppale. waaw dañ leen di jàppale parce que li ñuy def nii dañ leen a seetaan fan yee bi bi ko bi ko waali defee. Euh, oustaz bi si doon wax dañ koo tëj mais après mu jul fenn waaw loolu nag euh, oustaz bi li mu wax mooy dëgg dëgg moom boo ko dindee loo leneen loo fa teg amul solo dëgg moom mooy dëgg te oustaz bi li mu wax mooy dëgg waaw fi mu dool nii daal ñun euh, ñi ñi nga xam dañoo bëgg lu baax ñun ñoo war a jug nekk benn xeex loolu mu jóge fi Sénégal nekk ëllëg nekk Sénégal gu gu jëm kanam gu gu naat si wàllu développement wàllu esprit waaw ak xeex lu bon mu jóge fi. góor jigéen bu njëkk. xalaatul woon a génn tey xeer dàq ko fii ci kees góor jigéen ñi fi nekkoon ku masaan a génn fësal ko ay xeer lay dàq ba kër nga dugg maa nga nëbbatu ma xam ci ñu bare bare nag dan daan nëbbatu fu seen bakkan mën a tëdd ah léegi nag nëbbatootu léegi dem nañ bu ñu boo laalee góor jigéen tëdd ci kaso bi góor jigéen boo jàpp mu ne bàyyi ma mbaa ma boole mbaa ma feeñal kon am na ñu làq seen ginnaaw ñoo ñu làq seen ginnaaw nag ñoom lañu war a waxal nag ku manti doon ku ne ñu liggéeyante la ndax nag ñaara man kenn te bari te peuple senegal bi bu nu boo ko defoon tey ñetti xaaj benn xaaj a ciy ànd ak góor jigéen ñaari xaaj yëpp du ñu ànd ak góor jigéen kon jigéen góor jigéen moom kenn mënu koo protéger ba mu ba mu am moom mënta ne. te mbirum góor jigéen bi ñuy wax ni ma gis naa ni ne am na fi quoi am na fi ba ci kenn du ne amu fi am na fi mais bariwul ba ci comme ni ñu koy xalaatee comme ni ñu koy xalaatee ba ñu ci bari dañ koy di mbubboo rek boo ci colin rek demee noonu maanaam boo ci wutum lu rafet nag du mais est-ce que mbubboo ñu koy mbubboo est-ce que loolu tamit du yàq du yàq xale yi. parce que ñoom ay artistes lañu ñu nekk référence xale yi di leen bàyyi xel loolu mais mbubboo boobu ñu koy mbubboo est-ce que tamit du yàq xale yi est-ce que jotul aussi ñu leen ci ko defee ñu teel koo bàyyi. voilà ba foofu laa doon di ñëw daal parce que di mbubboo looy toppandoo ko bu yàggee ab di nga dem ba ni ah nag lii sax ku ko eh, est-ce que du lu gën est-ce que du lu gën parce que góor jigéen lu ci bari lu ci bari ba looloo koy indi parce que man damay gis ni toppandoo ci toppandoo lay jógee toppandoo bi am ci ay kilifa ay boroom xaalis borom xaalis yoo xam ni boo maanaam seen seen plaisir léegi dafa sori waaw parce que wutum xaalis ah. loo loo ci gën a bari la rek parce que plaisir ba pour nga am plaisir léegi dafay di gën a randu dafay gën a randu ba comme sax bu ñu duggoon nii léegi ba ci mbirum Nobel hmm? man ma wax ci loolu tuuti rek parce que naan nopp amatul ma dama naa am na dafa randu comme ni àll bi randoo léegi hmm? rek noonu la randoo mais yi mag ñi di naan fu ndox daan taa ba léegi boo demee di nga fa fekk pepp pepp moo ci ne bari na ci nag ay xale yu góor yu toppandoo góor jigéen ba mujj gi dañ ci lang ba sax léegi dañ koy jëfe ñu gis Ouzin Keita moom mi nga xamante ni dafa def euh, anniversaire am si ses bu yàggul semaine passée waaye euh, mu sol ay yére jigéen mu doon lu doy waar mais dañ lay laaj yow euh, moom lan ngay wax tailleuram bi nga xamante ni moom moo osé ñawal ko loolu. waaw Ouzin Keita moom euh, daanaka ñu ko ñëpp gisee rek noonu laa ko gisee parce que defe naa ne nit booy roy da ngay roy lu baax. parce que moom bu nee lu muy wootee mu ngi ci moom artiste artiste am na loo xam ne da koy jëfe pour nit ñi la roy mais sol loo xam ne leer na leen lii moom ñëpp ku ko gis sax même boo ko doonul sax nañ la ko ñaawee ne moom nga doon kon defe naa ne man daal Ouzin Keita dama ko jàppe nit koo xam ne rek maanaam am na leneen lu mu bëgg wala am na leneen nekk su ginnaaw moo tax mu koy def mais nit ko ànd ak sa xel ànd ak sa sago mais defe naa ni am na loo xam ne euh, bu nee yow li nga bëgg da ngaa bëgg mu dem ci kanam ak li nga bëgg nit ñi naw la am na loo xam ne waroo ko def mais loolu la sol vraiment di si wax ñëpp di ci wax mais defe naa ni comme élimaan sax lu ñu siy wax sax mën na euh, war na leen mais am na comme genre Ouzin Keita am na wax yoo xam ne sax boo koy wax defe naa ni parce que nit da mën a nit rek wala nit ñi xam leneen nga mën a doon parce que boo koy def muy gën a raqaaju nit ñi seetaan ko rek parce que àdduna dina ko yar parce que lu mu def moom teg ko fenn te àdduna ñëpp a ngi ciy wax mais teg ko fenn rafetul te jekkul si lu mel ni senegal nit ku mel noonu def jëf yu mel noonu sol ay jigéen ay rob jigéen loolu moom rafetul te téer bu ko ñawal it mu ñëw bu ne moo ko ñawal mu jël mesure am def ko jox ko ba téer boobu it vraiment lu muy def war na ko xoolaat waaw parce que métier mi du métier boo xam ne métier caaxaan la am na loo xam ne sax yow mi yor sa atelier nit bu ñëwee di góor am benn melokaan boo xam ne mu mel ko yow yaa ko war a mën a euh, euh, dindi si loolu boo ko mënta dindi si loolu am na loo xam la jaral yenn yi ba koy jël ko ñaw parce que tey jii boo jógee dañuy ne téere téere tey jii koo xool rek ñu bari dañuy ne téere góor jigéen ci lépp kon ñoom tey jii am na yoo xam ne bu leen koy nit ñi jox ñoom ñoo ko war a moytul seen bopp parce que vraiment luy yàq réew di yàq xale yi di même di indi jikko yoo xam ne vraiment mosuñu ko gis Sénégal vraiment daal doy na daal. est-ce dafa am ñu nekk ci ginnaawam di ko dooleel ba mu am fitu def lii. waaw parce que euh, defe naa ni ñoom ku gis euh, seen nu ñu mel ak tranga yi leen yàlla jox ak vraiment moyens yu ñuy demee. nga xam ne ñii qu'est-ce a am na lu ko waral parce que vraiment euh, góor jigéen baadoole doole du ko doon nañu wax di dëgg parce que ñu koy doon ñëpp ñëpp ñëpp daanaka ay borom koom-koom la ñuy yor dañuy yor xaalis dañuy yor oto yu rafet di si milieu yoo xam ne milieu yu doy la kon ñooñu am na ñu nekk seen ginnaaw kon lu jar a la lu jar a seetaat la que defe naa ni euh, bu noonu baa rek baa doole moo koy doon kon loolu mais ay ay ñoo koy doon ñu koy def ñëpp ñëpp am moyen parce gis nañ ne CICES ak nu mu rëyee xaalis bu weex tàll moo fay dugg mais Ouzin Keita warul mën a am xaalis boobu pour pour mën a fay CICES moo tax ma yaakaar ne ma laaj la ne est yaakaaroon ne dafa am ñeneen ñu nekk ci ginnaawam di ko jàpp. waaw mais loolu loolu loolu loolu moo am parce que Ouzin Keita xam nañ ko benn morceau bu mu fi génne kenn xamul morceau lan la kenn xamul lan la kooku kenn mënu kaa déglu kenn mënu ko fecc kon ku mel noonu bu jegee jég jég tey jii am loo xam ne mi ngi koy def parce que am ko may fit. parce que bu ko amuloon du ko def loolu rek la mais Ousmane Gueye Ousmane sa ay waxam moom dañ ko parce que tekkul dara si musique bi lu mu génne benn cassette fi génne kenn xamul lu mu wëy ay bërigoog ay kërëb kërëb yooyu du wax ah moom kay xam nu mu leen doxale parce que ne bu bëggee mu am mu am bu am du yi vraiment ñoo ngi si wasu àq di si wax chaque jour war na mën a jàppale imaam yi rek si wax yu ñu ciy wax rek mu jàppale leen. lan nga xalaat ne moom buñ ko defee loolu dina denc suñum réew. Ah, waaw xanaa lenn man li ma li ma xalaat képp ku ñu gis nga koy def ah, ñu yoon dal sa kaw dal sa kaw gi mooy lan ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ah, ñu àtte la àtte ate bi lislaam àtte bi lislaam waaw mooy ate ate bi nga xam ne moom la Alxuraan saxal suñu borom wax ko Alxuraan saxal ko ci Alxuraan waaw borom ñaari tur yi ñu génn la dëkk bi parce que kooku day yàq dëkk bi. man ay affaire man pour man ku ñu jàpp la ci kaso bi léegi ñu bàyyi ko. waaw ku ñu jàpp yóbbu la si kaso on interdit ça comme dans les pays musulmans dans pays naar yi ay de góor jigéen yooyu amu fa ça n'existe pas euh, booy lan ngay tëjee ban conseil nga ngay jox xale yi nga xamante ne ñoo ci loolu. waaw xale yi nga xam ne daal ñoo ne ci loolu. di elaw yeeg ñu dul elaw ak ñépp nañ ko ba. sachet cent franc yii ku ko sa doom di jënd nga taxaw ca ndax sachet jaay cent franc bu ñu ko jëndee ci école bu ñu ñëwee war ngaa xool sa doom soppi ko naam soppi ko. yaay luy sachet cent franc. mooy sasa yooyu ngeen naan di nelaw ak daanu eh, xaw ma guwaanaa la tudd xaw nit day topp toog njabootam man de sama doom jàng nañu école ba tubaab fakkal la ñu ngi sant yàlla waaye masuma cee bàyyi kan ma geraw yi ñuy def nii sama doom masta geraw fii laa koy waxee ci kees ñëpp xam nañ ma Adja Mati ñaax koo ko wax ci kees xam na ko waaye sama doom masta geraw man ba léegi damay defanteeg ñoom ba fii ma toog di wax. doom ju jigéen sax yaam jëkkër bu solee lu mu war a ma ne ko summil am moo set ndax sa baay daaw ko nangu barke yonent bi nañ toppatoo suñu doom yi te suñu doom it nañu am jom ndax nit day am jom xool ci ñu fi jaar président yi jigéen leen jur te gënuñu leen damay wax ne ministre yi gënuñu leen député yi gënuñu leen nan seet ci maam Fawade Wele ak maam Jaara Buso xool ci sëñ Tuubaa ak Alaaji Maalik xoolal ñu fi bàyyi xam kon ñooñu dekku ci woon ci ay caaxaan kon yàlla na yàlla def jàmm ci réew mi na ko yàlla defal télé bi sant naa la gërëm naa la nañ yàlla boole jàmm. ñun sant nañ la gërëm nañ la bu baax a baax jaajëf.